justement voilà deuxième question bi mooy ci détection bi di ngay wax effectivement Sénégal ñu ngi fiy dégg ñëpp ñi am tur ci athlétisme fu ñu jógee IAAS yi la ñu tey ana IAAS yi amatul kan moo ko fi jëlee est-ce que sportif yi ñoo ko fi jëlee non donc je pense que dañu war a delluwaat ci école yi mhm. mënuñu réussir comme li ngay wax Jamaïque li tax ñuy réussir ci école yi lañ dellu mhm. tey on fait de la détection à tout bout boo xoolee yaa moins d'un mois on région yi Sénégal yépp ñëw Kolda ku ci nekk région bu ci nekk dañ faa tànn 10 xale yu yi gën a yi gën a xarañ ci góor 10 xale yi gën a xarañ ci jigéen muy 20 chaque région inde 20 14 régions. Mhm. fois vingt ñaata la deux 280 athlètes ay xale. yóbbu leen colda jongante leen su la direction de Mame Boye Diao tey détection ñi ngi koy def donc xàmmee nañ tey boo ñu boo ñu fëggee. Mhm. ñi génneel la cent 280 xale yi gën a xarañ Sénégal. ah yéen a ci kon. ah yàgg na musuñ tey jóg mais pourquoi kon euh, boo gisuñu résultat yi boobu ba léegi. mais moom laa lay wax une mission des moyens. ok tey yéen bu ngeen amul woon moyen tele bii nii tey bu ngeen amul woon moyen du ngeen dem. des moyens financiers des moyens des moyens financiers. exactement les moyens humains yi techniciens yi Sénégal. xàmmee nañ leen Afrique xàmmee nañ leen sur l'international. ci xarañ kon ministère bi loolu. non bon est-ce que yéen am ngeen sax bon comme par exemple euh, ku ku mel comme Lamine Diack bu fi nekkoon avant nga xamante ne bon. Mhm, peut-être peut-être personnalité bi di la représenter quelque chose nga xamante ne su demee gis directement sax sauté ministère bi dem président Macky Sall peut-être mën na ko est-ce que loolu manqué wu leen quelque genre leadership yooyu est-ce que ça manque pas. bon c'est vrai que demu Lamine Diack. donc ñu ngi ciy profité sax di ko ñaanalaale encore. Mhm. yàlla xare ko aljan te yërëm ko. demam c' est une grande perte. mënuma la wax ne nit mën na ko remplacer. Mhm. ci côté athlétisme. mais am yoo xam ne c' est des voies di amal liggéey bu am solo. di amal liggéey bu am solo. Mhm. xam sport bi xam discipline bi buñ ko waree. Euh, plaidoyer la ñu defal ko plaidoyer. donc am na fii biir Sénégal ñàkk fi te ñi ngi ci ñi ngi koy def mais nag résultat yi. Mhm. moo des mais je pense que on a des docteurs chez nous. Mhm. on a des d'université ñoo xam ne ci sport bi lañ jàng xam ko on a des anciens internationaux athlètes ñoo xam ne ba ñu nekkee xale ba léegi. Mhm. moom la ñuy def nous avons des dirigeants valeureux ñu xam luy administration ba pare xam lu ñuy defee ak état donc ñoo ñëpp ñu ngi fi on a toutes les entités. il reste maintenant réaction rek la ñuy soxla moyen fexe ba li ñu jox fubal tey sept milliards wala cinq milliards yi ñu ko jox ñi jéem koo defal yeneen sport yi xool ba xam danañ indi lu raw lu fubal bi di indi